Bienvenue dans votre chaîne YouTube Top Info TV Sénégal. La chaîne qui est différente des autres chaînes. Top Info informé, éduqué. L'information juste et claire et sens aigu de la responsabilité. Notre credo.

examen ay corrigé examen yooyu yëpp xale yi mën nañ ko mën nañ ko faa fekk am aussi beneen initiative boo xamante ne bii euh, dañ ko jël ak RTS à partir nga xam ne jox nañu benn canal TNT canal 20 nga xam ni ay ay collègues ay professeurs ay maîtres dañu dem foofu di def ay cours pour xale mën ko suivre. Saourou Sène di secrétaire général bu syndicat bi di CMS CISAMS di xamle ne matuwaay yi rafetlu nañu ko waaye nag nguur gi def cee waroon a waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi. initiative bi ci ministère jël rek ñun dañ ko ciy jaajëfal parce que dafa nekk situation bu bett ñëpp kon ñu maîtriser tous les paramètres d'emblée il faut ñuy avancer di xol lan la corriger wante et la technique jël day nekk kilifa yi nekk jël dogal teg li nga xam ne moo di ab plateforme bi ñu tëddee éducation point com ngir ndong yi mën faa woylee seenam njàng laaj bi sampee mooy di ndax ndongo yëpp am nañu accès ci internet.